plus de culture, toute l'actualité en temps réel. Vous Vous êtes euh, en direct sur le Dakar 220. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Euh, ñu ngi sant Yàlla di julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam di am mbégte di len nuyu tabarakallah di len ziar sen mbokk sen xarit Serigne Hadisi fi ci Tivaouane mo fas yéene waxtaan ak yeen Euh, tey président war a ñëw fii def fii li nga xam ne moo di pose pierre euh, autoroute ci euh, mm, Tivaouane Saint-Louis ban yëg-yëg la ci Serigne Hady am. liñ ci am bëri na dañ koy rafetlu d'abord di ci am mbégte ndax man ànd moom pose premier pierre Ila Touba ànd moom immigration Ila Touba ànd moom feneen ak feneen ak feneen kon tey bu Tivaouane aylee ma dëkk Tiwaawan du moom man lu dul sante ko yàlla di ko ci gërëm nag son excellence président Macky Sall tey mu war def pose premier pierre dakaar Thiès Tiwaawan Saint-Louis di ñaan yàlla ma commencé ko ci bismillaahi rahmaani rahiim àggale ko ci alhamdulilah rabbil aalamiina bañ koy teeru mu war ko inauguré ah, lan mooy ambition yi ci élection yi nga xam ne moom la ñu jëm lan mooy ambition yi waa Tivaouane wala euh, responsable comme vous. non tey élection taxu ñoo jóg tey li ñu tax a jóg mooy pose première pierre bi nga xam ne président mi ngi ko fa yéene def loolu dañ ci am beneen taxawaay ndax ki la abal bët du fa la neex ngay xool mais ki la jox añ jox la reer bu la dinaa la jox ndékki war nga ko gëgëw kon loolu suñu diggante président moom waxuma la sax élection mais dépasse nañ foofu. Rock Vanyi, vanyi, vanyi, vanyi, vanyi, oh, ah, cha, cha. ñu doy sàll ngaari lam tooro buuru say jëf yu leer tax na tey ñëpp kontaan di la bége bañuy xëccoo wurus feeling. césarienne de simu e way manay way san ngari lam toro jaram a manay way san ngari lam toro jaram e way manay way ñu bàyyi nga présenté wu vous êtes euh, en direct sur le Dakar Wa 221 asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuh euh, ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte di leen nuyu tabarakallah di leen ziar seen mbokk seen xarit sëriñ di si fi ci Tivaouane moo fas yéene waxtaan ak yéen. Euh, tey président war a ñëw def fi li nga xam ne moo di pose pierre euh, autoroute ci euh, Tivaouane Saint-Louis ban yëg-yëg la ci sëriñ hadi am. liñ ci am bëri na dañ koy d'abord di ci am mbégte ndax man ànd naa moom pose première pierre Ila Touba ànd naa ak moom. Ila Touba ànd naa ak moom feneen ak feneen ak feneen kon tey bu Tiwaawan aylee ma dëkk Tiwaawan du ma man lu sante ko yàlla di ko ci gërëm nag son excellence président Macky Sall tey mu war def pose première pierre Dakar Thiès Tiwaawan Saint-Louis di ñaan yàlla ma commencé ko ci bismillaahi rahmaani rahiim àggale ko ci alhamdulilah rabbil aalamiina bañ koy teeru mu war ko inauguré Ah, lan mooy ambition yi ci élection yi nga xam ne moom la ñu jëm lan mooy ambition yi waa Tivaouane wala euh, responsable comme vous. non tey élection taxu ñoo jóg tey li ñu tax a jóg mooy pose première pierre bi nga xam ne président mi ngi ko fas seeni def loolu dañ ci am beneen taxawaay ndax ki la abal bët du fa la neex ngay xool mais ki la jox añ jox la reer bu la dinaa la jox ndekki war nga ko gëgëw kon loolu ci diggante ak président moom waxuma la sax élection mais dépasse nañ foofu.